mais comme tey ni gars yi demee assemblée tey xool ba président recevoir leen. Mhm. ñoom bu nekkoon ay góor dañuy génn wax lu wax wax loo xam ne ni. Mhm. nice na. Mhm. Euh, parce que même bu nekkul dara sax. bu wet recevoir na leen. donc xool gisoo fa dip. muy gaaw. gisuloo fa dix mille problème. mu gisoo fa xoola dof ndey. mu gisoo fa ay nit dof. wala gisoo fa xoola keneen ak keneen am na quoi. tu vois mais am na ñu fa dem. seen intérêt moo leen fa yóbbu. lanu jële biir palais nag ñoom duñ ko wax Baye Fall amul kuy dugg palais te doo génn xaalis dëggantaan ñoom ñu ngi wax wax nan ay palais nan wax li leen président jox ñaata la mhm. ak xaalis boobu ñu ko moom nanu xam ne xaalis boobu ñuy enquête suñu xaalis la mhm. Mhm. am na solo ndax bu dee faatin ñun danoo faayit ba naaw danoo xeex yàgga di xeexal sunu temps suñu Sénégal mais kon tong teel naan lu sotti am boroom mais gis naa fa ay kanam yoo xam ne tamit man xaw ma ne sax Sénégal gis naa seen recevoir bi bii palais ñu toog ñoom te président ni ko mu woo da nga war a ñëw ndax mooy président mu neex la mooy président mu naqare mooy suñu président man daan ma tant que jeexul du fi jógee waaw góoma ay xel parce que instant bi entre ñaar ñu ñoo nu sonal ni opposant ni pouvoir nanu nit ñi waxante dëgg ñu bàyyi xel parce que problème baaxul su réew yal na yàlla mënul si ay guerre ak ay guerre mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. amin ba tey yal na yàlla musal si ay guerre ak ay guerre civile parce que nit ñëpp yemunu mhm. nanu yeddu sénégalais yi mhm. parce que xeex bi suba ngoon amul njëriñ mhm. tey histoire su amee xool policier dañuy sonn wete force de l'armée bi dañuy sonn nit ñi dañuy sonn magasin jàmbur day daajeeku table yi xool dañ koy taalee ata karo yi dañ koy génne xool di ko xeexe te ñoo ko moom bu subaa ñu defaraat amul sens. yeah loolu du solution quoi. tey nga gis ne moom moo nekk problème bi ba tey ku ci ku ci mel ni 10 000 problème dof nday ñi nga xamante ni dañ leen di dégg ñu bokk tamit ci ñi nga xamante ni marqué nañ seen seen seen seen empreinte ci hip hop <laughs> di xeexal gars yi te mënuñ leen a gis ci biir TRG show boobu noonu. non parce que ñun ñun. Hmm. muy man muy 10 000 problème muy dof nday est-ce que déggoo ngeen ak gars est-ce que. jubóo ngeen waaw non non mais bu ñu gisantee dañuy nuyante mu suma amuñu problème. Hmm. mais ñoom seen projet ñun duñ si bokk. lu waral loolu. parce que xëy na li ñuy wax wala suñu communication arrangé wu leen. te mhm. pourtant ëpp nañu ay fans. Mhm. dàq nañu musique ngeen ak ak ak Tafa bi nga xamante ne moom moo géré loolu. Tafa Tafa Dabra ma xam naa ko bu baax a baax a baax. Mhm. je le connais. te sama nit la moom invité nañu ko moom. tubaab Jalaaw ñun bokk maa Dof Ndeye invité nañu Tafa bu Dabra bi gars yi njëkkoon dem ko Dakar përe bi man naroon naa dem mais xëy na man maa bëggul dem mooy xool tournée bi laa doon def mais li may ñaax ay ñoom Tafa mais Simon aw li ma ko parce que Simon dafa am xol liberté xol provisoire la am moom amul droit sax di wax yenn yi wetti fa mais Tafa bu Dabrins ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñooy diriger surtout surtout Tafa bi nga xamante ni moom moom moom moom TRG parce moom mooy manager wu Ngaaka Blindé waaw moom moom amee affaire yu bëri si loxoom la jaar quoi. Mhm. wax dëgg yàlla quoi dafa am dabans lu bare fii si affaire hip hop fii nii. Mhm. moom si loxoom la jaar ko mhm, après nag moom mën na woo mën na xool ay nitam ñu ko gën a jege. def benn link. bu nekkee ay concert Europe. dafa am fay. ñu naan ay simo jàpp nañ ko ay visa ay nii. ah ay jàpp xool ay xool ay jàkk du visa rek nekkoon pale boog. ci yi dem foofu ñoom ñëpp. <laughs> ñoom ñëpp ay trafiquants la <laughs> mais est-ce que est-ce que président yëg na li xew en fait. non ñoom ñoo gën a xam li xew ndax affaire yi côté papier si état bi lay jógee. man mënuma defar waaw man xoola waaw mais certificat sax mënuma defar. Mhm. bay defar ay passeport diplomatique ak ay visa bay faal. Mhm, mhm, ah ña fa nekk ñëpp. bu ko waa kër visa la mais tamit ay ay grand lañ ci hip hop quand je ay grand lañ ci hip gis nañ fi ku mel ni gën maan xumaan xam nga moom it nekk na ci bokk na ci ñi nga xamante ne tey jii Euh, mayul dara mayul dara kii di président xam nga mayul dara kii di président donc tey ci ñoom am na ci aussi ku ñuy woowee ku ñu woowee riifu ba leen ay ca amul am na ci ku ñuy woowee ci ñoom riifu euh, keroog ñu ngi koy dégg ci direct mool gën bi nee na bi gars yi jàkkaarloo ak mag yi mayuñ ko dara bokk na ci liñ ko wax mooy jafe-jafe dëkk bi dal nañ ci kawam waxtaan nañu moom comme ni ñu war a waxee moom yow naka nga jàngatee loolu noonu. mais la moo tax ñoom bi ñuy dugg amul. pourtant ñoom euh, waaw bi ñu duggee. ñoom nee nañ xaalis yóbbu leen fa woon. non sa waay mënoo dugg palais te encaissé woo. Mhm. bàyyi xaalis mooy fii xola ata ndox mu tàng baay ku koy naan suugal saa tax. ay dóorkat la ñu bokk boo bëggee dégg dëgg dóorkat mooy ñoom. ah ah nit dof. ok sa yow ñoom ñëpp ay yanamaar lañu. Mhm. ñoom ñëpp ñun ñëpp xool fan la nekkoon. Mhm. affaire bi daal benn lobby la. benn groupe la. ñoom ñooy encaissé xaalis bi. ñooy lekk ñoom ñëpp am oto. Mhm. ñoom ñëpp am seen ay terrain kër. Mhm. mais lan la wéy la problème léegi xaar ñun ay dof la nu quoi ay xaalis yoobu nu fa yéen lu doon na palee. Mhm. te président recevoir nga ni xaalis yóbbu ma fa. Baye Fall nu waxante dëgg ay dal naa ko ñoom amuñu fit tim ki Macky ndànk nii nii ndànk na nii wax bu ñu tiimee président di bu ñu génne nag naan li ñu wax président liñ ko bu ñu dofoo ni ñi. ñemewuñu seen engagement li ñu wax ñemewuñ ko. ñu ngi nañuy tekkal du ruur bi ñu ngi naan ay bu ma jegee pare président moo leen recevoir ñoom ñoo fi nekkoon di ŋaang naan ay yéenee mais wax leen nu mu demee wax leen ko dëgg dëkk bi daa metti wax leen ko président ne wàññi lii mu nekk lu leer waaw mais loolu la ñu wax mu am mu am mu am continuité mais doo ñëw ni coobal la ceebal la nga enquêté sa mënu ni ñëw di teg nday ni ñi xel fii dofunu mais ku mel ni après def na sorti ne ne moom carrément dafa dal ci kaw waa ji d'ailleurs moom joxuñ ko woon micro bi mais of micro bi bi nga xamante ni gars yi wax nañ ba nar a delloo micro bi kii di président dafa fëkk micro bi dal ci kawam ba président ko laaj xanaa Saalum Saalum nga. ñoom ñëpp dégg naa seen ay message ñoom ñëpp dégg naa seen ay parole ko ay li ma wax nii ban ma këfee ban ma niwee lu fu waay wax na ko xam. Mhm. te man lu ma wax man dama koy waxaat. Mhm. Ah, maanaam ñoom ay dóorkatu marto lañu mhm. point. lu nu mën a wax si présent. nañu wax ñaata nañu encaissé bi ñu génnee palais. Mm-hmm. yes saay moo am solo quoi ñu bàyyi nit ñi yow moom ma may lekk ay bi mm-hmm. yaa ma gën. Mm-hmm. waaw yow ñu bëri tamit ñu ngi ñu ngi faral di dal ci kaw gars yi comme quoi que ni le fait ñu annulé concert u Nit Dof bi ba pare yenn yenn gars ci ñoom ñi nga xamante ni am nañ link ak Nit Dof dem seeti ji euh, président mu recevoir leen mu mel ni comme si yaa ngi côté ñaawalaate ci biir ba Nit Dof doon na naxarlu lu ni mel sax. xam nga awri moo njëkk a bëgg jox benn concert. nga pour soutenir ko le président. opposition bi bañ. yaa ngay dégg da baax. dëggantaan maa ñu demaa foofu niveau nit doof tegaat beneen concert moom. te ñëpp xam ne ne Sonko lay jàppale. ñoom li tax ñu bañ seen biir ñoo ko xam. mais bu waxtaan si gàttal rek. affaire nit dof ak concert am boobu noonu. man liggéeyantuma ko samay nekk su moom. ndax bi muy teg concert man invité wu ma. ñi muy invité nag xool a nga ko dem leen ngeen laaj rapport yooyu quoi seen xalaat mais pas man man li mu boolu rek bokk ma ci. mais mais mais am nga ay link ak ñu dof euh. quoi am nga ay link yu rafet ak moom. am nañu ay link nii si jàmm ak salaam wax dëgg yàlla quoi mais du ma dugg seen affaire am quoi. mais bu du waxee loo xam ne su xam ne war a ko wax en tant que sénégalais ñu war ko tontu da nga koy tontu. Mhm. mais ay problème concert am. li tax géol ak géol kooku sama yo nga ñu nekk si. Mhm. liggéeyantuma ko sax. Mhm. je m'en fous de ça. Thank you.